nanu am njàng am na sax ñu am fitu en pleine séance hmm. ñu jàpp góor tëgg ko talaata mu daan yow sa problème peut-être diggante góor ak jigéen la waxuma ak yow yow négal ba ñuy ubbi da ngeen a wax yaayu tey li nu am man na wax leen yaayu démb la nu am kii yaayu tey li nu manqué. sa point de vue la am naa ci ah, droit. point de vue la xam nga tey moom problème am problème mu góor ak jigéen ay mbirum dóorante per violence. man waxuma dóor de. waaw si ay talaata ak yow yow violence moo la neex yow. man yow da nga am problème mu dóorante ci néegu sëy man je ne suis pas violent. waaw d'accord da ngay a egg ci du ma la déglu da da nga problème nit ñuy xeex ci néegu sëy di voilà kon nag. su ma la nee doon libéré la je te libère le problème ah, tey je te libère sa yoon nekku ci génn si ah, waaw ah, c'est pas gay du sa problème ñii laay kiwal waaw du nga ne internet yi nee na ñuy déglu su wax jotee damay wax bala mu may rëcc ma di ko fàtte yaayu yi mu wax nee na doonoo am yërmande ak lépp man ma wax ko yaay yi tey <laughs> toogatunu kii toog nooy fekkee xam nga bu may lim léegi ay usines yu mag ña daan liggéey booleel na ma ci ay usines moom yu mooy kon xam nga kon ce qui veut dire que liggéey jigéen buy liggéey ci biir sëy néegu sëyam du tay rek waaye nag su ma saan jógee ci liggéey ñoom day dellu ci si biir këram loolu ànd naa ceeg yow Fall may ma rek moom te booba doonoo albatiku woon kër gi maison familiale lay doon caari géej benn bool moom moo daan tege ci penc bi ak ci kër gi nga xam ne ñëpp doon sosi soo liggéeyee doo xalaat dara njëkkee ngi ci kër gi rakku jëkkër a ngi ci kër gi bàjjen a ngi ci kër gi nijaay a ngi ci kër gi jarbaat a ngi ci kër gi tey appartement la nekk di liggéey. d'accord ami est-ce que yaa ngi comprendre. am na ci kër yoo xamante ne. am na ci kër yoo xamante ne dama ni sa yaay moo fay nekk sa papa ak say mag. ay njëkkeeg nijaay newuñu fa woon te say mag ñoom ñoo doon toog di gérer li nga xamante ne mooy sa yaay nekk fa di ko gérer xam nga problème bi fan la nekk moom mooy lan mooy tey li ñëw ci yaayu tey te mën leen mhm. technologie mën wayjuru tey mooy maa ngi la doon wax lan ci kumpa gi mooy bu njëkkoon say wayjur lañ la daan tere ne la bu ko def amaana boo ko defee dara du la ci fekk mais doo ko dem def parce que ñoom seen wax nga daan doyloo te amul feneen foo koy xamee mais tey nag avant sa yaay di la ne lii bu ko def ndax nii moo la ci fekk am na keneen ku la wax ne lii boo ko defee ba romb ko am na leen lu ci fekk Benoît wax na ecole hier y avait des yu doon jàngal seeni ay doom mooy tey amoon nga ay ay professeurs yoo xamante ne wala ay maîtres xam ne sa moroomu papa lañ nekk wala ñu nekk sa moroomu yaay sa yaay bu fa demee ci école bi dalay wax ne la mu ngi noonu sa doom la lu la war si moom defal. démb donc ce qui veut dire ni su sa wuy metre dooree ba am màndarga soo ñëwee si kër gi yow sax doo ko wax parce que xam nga ne soo ko waxee dafay dañ lay dooleel ci biir kër gi beneen bi mu dëkkandoog yow. doo génn parce que xam nga ne heure bi bés bu ma dajee ak moom suba classe du yomb ci man mais mhm. tey nag lan moom moo am ay nit yoo xamante ne gagne-pain la ñuy ut ci wàllum enseignement su ñëwee li leen di itteel mooy cours bi diggante midi 2 heures la midi 2 heures dañ koy matale suñu paree jóge fa dem amaana tey nga am élève boo xamante ne au lieu que ngay nekk ci moom parent dalay wan ne la man ak yow ñoo tolloo si génération war nañoo mën a bokk li ñuy dund nga daal di dépasser cadre maître ak élève yéegi ngeen am cohésion boo xamante ne dangay dem sax ba dootoo ko mënati tere amaana mu woola ci li mu nekk ngeen dem ba séq loo xamante ne erreur dal la ci kaso fekk la ci. d'accord ce qui veut dire que ne tey li changé bëri na. Mhm. changement bi dafa ñëw ba ci école bokk na ci technologie. bokk na ci comportement mais bokk na ci cortège de réalité ñi jamono bu nekk àndal di ko Serigne Cheikh daan waxee. d'accord ci kontaan nañu bu baax. ba sa rakk la dóoral sa jarbaat la dóoral. qui aime bien châtie bien loo bëgg danga nga koy def ci moom kii moom daal di ëlbatiku daal di ne sama doom enseignant bu ko dóor dégg ngeen ko fii fii la ko waxee woon sama tekki ko wax mi ngi fii d'accord sama doom enseignant bu ko dóor mm. dinaa la fekk fa nga nekk ca école ba d'accord te ñu ne kii aime bien châtie bien Aminata Paye daal di ne démb doonu ñëw ne la sa jarbaata sa rakk la yaral jubbantil yéen a bokk lépp su mbaam duufee duufali tànn ëllëg xamoo kan mooy jëriñ moo tax Mohamed Boun Abdallah Dionne la nga xam ne moom mu se monsieur Jamdi daan def dem na ba jëriñ monsieur Jamdi barke borom Touba euh, on parle d'éducation soo gisee depuis sànq ñu ngi nekk di dem entre démb ak tey euh, ñoom mm-hmm. comme on a l'habitude de le dire peut-être chaîne bi dafa kase wu à un moment ou à euh, mais li nekk ci ñoom nekkul ci xale it léegi nekkul ci ñun le pourquoi on va moom la ñu moom la ñu nekk di waxtaanee Amina na Paye am na ay points importants yoo xam ne soulevené ko par rapport ak li nga xam ne mooy internet bi et tout mais comme ni ñuy wax chaque jour rek doo judd rek nekk en contact direct ak internet y a des yoo xam ne yenn âge yi du ñu jox seen doom tablette comment gérer tout ça il va falloir euh, dem xool bu baax parce que internet c'est vrai que li muy détruire moo ëpp li muy defar surtout ci côté xale yi absolument encore une fois ma lay gërëm Safia amati mbégte nekk ci plateau bi balaa may sori rek dama am lu ma bëgg wax maanaam gis nga li gën a nekk suñu problème tey saa yu ñuy avancé nag Sénégal di koy di koy gën di gis. Mhm. mooy confrontation entre la woon démb ak li am tey. Mhm. alors que complémentarité la war a doon. man ci li ma jàpp mooy la woon démb ak li ne tey dañoo war a ànd. mais est-ce que mën complémentarité déjà ñoom ñoom mag ñi dañoo dañu. en fait va dire dañu xeeb de trop. waaw dañoo jàpp ne ñoom tout était parfait à leur temps. et ñun tout est mauvais xale yi tamit jàpp ne mag yi li ñu doon def dafa dépassé duñ ko duñ ci jaaraat. loolu mooy complémentarité dafa am. mooy confrontation bi may wax te bi nga xamante ni warul woon am. ni waroon am mooy jël li baax fee. jël li baax fii mhm. boole yëpp ñu ànd doon parce que man bokkuma ci ñi gëm ni yaru demb moo gën yaru tey bokkuma ci ñi mhm. gëm loolu mhm. bokkuma ci ñi gëm aussi que yaru tey moo yées yaru demb lenn moo am ah, ah, le waaw soo ma dégloo rek la euh, tànk bi tàllee ko euh, li am solo ci li ma gëm man mooy jamono day dox ñu war a ànd ak moom dox lépp loo gis lu amoon en 1960 1975 tey soo yeggee 2021 na mu doon doxee jamono boobu mënoo fexe ba mu dox doxee noonu époque bi damay jël benn exemple mais internet ñoom seen jamono amuloon yow tey mën nga fexe ba ni sa doom bu utiliser internet foo koy teg mais soo ko defee tu es en train d'en faire un analphabète te kenn ñaanu ko yàlla seen jamono suñ la nee jigéen warul jàngi mais tey mën am nga xalaat yow nit am doom ci fii ñu toll nii mu ne jigéen la du ma ko yóbbu mu jàngi xel nanguwu ko donc tey su fekkee période boobu baaxul woon ren époque bi ñu toll ñun dafa baax donc faw ñu nangu ko avancé mënuñu cloîtré wu bloqué ci benn époque rek ne foofu la ñuy doxee foofu moo baax jigéen day yenu diis mbana xaw ma togg du lekk noonu nañu avancer c'est-à-dire àdduna dafa toll foog ñu avancé père te ànduma ci loolu voilà jigéen mënul togg ba xiif ci jamono yi ñuy toll man man sama kër Ndiaye fii la dëkk Grand Grand Dakar fii sama kër maam ba tey dama koy gis ah damay gis ku togg togg bu bëri waa koñ bi ñoo fay ëpp ñu toog di lekk moom ndeysaan mu toog ne la di xaar mbégte man ci li ma njëkk marqué bi ma fi ñëwee la bokk su ma leen laajee ñu ne non mbégte gi fii la nekk ñu leen di gis ñuy lekk mais loolu c'est un choix et d'accord ma ñu forcer nit ki pour ñu changer ko mais ñi nga xamante ni tey dañoo bëgg a tolloog seen époque ne ñun ci suñu biir dund nii lañ ko bëgg a doxalee faaw ñu nangul leen ko mënuñu leen ne na sa maam daan def noonu nga war a doxalee par la force loolu mënul nekk deuxième affaire te bi ma koy seetaan bi ma leen di seetaanaat euh, laa la la la laa ko gën a marqué uh-huh. mbirum dóor tubaab dafa am lu mu tuddee fessée la fessée ba en France ñu ne non c'est arrêté plus de fessée il y a quelques mois encore ñu andiwaat fessée ñu ne. ñoom tubaab bi waaw ñu ne c'est quelque chose de normal mais attention. Ah, et je pense que Safia yow yaa ko préciser la dernière fois ci émission bi entre corriger. la fessée ak li nga ak battre son enfant la violence et malheureusement sooy déglu fii tey man de père keroog bi ma koy déglu euh, même s'il dit dans son discours que ànduma ci àndul ak euh, violence mais li nga doon wax c'est un peu la promotion de la violence parce que tey mm. parce que nit ki sàcc na nga lakk loxo mais ça c'est de la violence muy demb di tey ah. violence. des na waxuma lool rek. maa ngi eggal des beneen na nga eggale de. dina ci ñëw nank muy démb di tey. waaw loolu violence. mais eggaleel li ma wax. Eh, ñaari eh, mu laa eh, wax benn nga ci wax. traumatisme bi muy créé. dama ne benn nga ci wax di nga wax nag ñaar yëpp dama xam ne ab naa fekk nga. sàcc nga nu lakk sa loxo beneen bi. kaani waaw loo wax ni kaani lan kaani. yaa nag kaani nan toj kaani ci loxoom pour mu. toj kaani ci. waxoo <laughs> loolu de xam nga ne kii dégguma de. yow xaaral ma ne papa yow wax nga ba pare. waxal lu ma wax dégg lan laa wax. wax nga ba pare waaw léegi lan laa wax. xaw ma li nga wax. nangu wunoo wax li ma wax. man dama ko fàtte naa fépp xam nañu fàtte. yow ma ko waxal ma waxal ma jàng ma jàng jàng école. Ah, di nekk ci internet sa samay jamono internet amul tey dàqoo maa làkk tubaab. je me supprime bien en français ndax man tombé wu ma ak internet. internet nga tombel te maa la gën a neexi tubaab. je suis plus riche en vocabulaire Alhamdoulilah. Oui, je m'exprime très bien en français. Serge, continue. Je suis là où placer les consoles et les voyelles. Absolument. Ouais, voilà, c'est ça. loolu bëgg naa ci yow torop man li may ñaan yàlla mooy làkk wolof ah, ba ñu ne ma yow yaa dégg wolof. waaw waaw. li may ñaan yàlla mooy làkk wolof ba ñu ne ma saa kat léegi dégg nga wolof bu baax a baax. parce que man je suis africain je me réclame sénégalais africain. d'accord donc ma fàtte. Ah, li leen ma ni ma. waaw dafa nekk waaye dama ne yow waxuma ak yow. Eh, eh yow laa wax yow waxuma ak yow. dafa yow li nga wax mi ngi ci ba gars yi dugg. yaa ne enseignant bu dóor sa doom. di nga di nga ko digaale ak mooy ah, yow yaa <laughs> la ma tax ñu may sot ñoom ñëpp te kenn sotu la leer dama en tant que ay maamam sant pay jaraaf pay yéen dégg nga nga xam ne waa kër ndellu pay yi ñu ngi fi mu ëlbati ko am fit ak audace daal di Fall dama ne. doo may Serge ma introduire bàyyi ma s'il te plaît Aminata. li nga wax bari na parce que papa papa Serge introduire gul tey jëy tamit mi ngi xaar. waaw après rek dinañ ñëw ci la ne ci loxo kaani ci loxo laa. après mu continué après mu continué. lan man maa jug léegi baal ma waxoo loolu. très bien léegi dama ne dama ne man la may wax. la may wax la may wax nit mu dama lay kaani. très bien man li may wax nit mënu ma kaa tere wax dama ne la nekkoon violence. sa <laughs> jamono. parce que nit sàcc na wala jël na lu mu moomul ñu lakk loxoom. waaw nga defaat ko tay violence. ah oui. et loolu ça crée un traumatisme à l' enfant. waaw léegi nag kon su xale bi sàccee bu leen wax kenn. waaw non bu jël ay raccourcis bu jël ay raccourcis faut prendre des raccourcis. su xale bi sàccee bu wax loolu soo ko defee nit ku mu mënti doon. violence. su amee sama kër dinaa ko fa def. baaxul. sama kër laa wax. waaw yow yaa moom sa kër. waaw kay baax na. sama kër ak sama njaboot. waaw mais même ma terminer ba ku fa sàcc ma lakk la. soo demee màkk ku sàcc nu dagg sa loxo. d'accord fii nag Sénégal charia nekku fi. man waxuma la charia de. très bien. boo buggee nekkee ni. waxuma la charia non non mais mais li muy wax parce que xam nga lu grave. Eh, ci télé la ñu nekk ci télé la ñu nekk dafa yoo xam ne man dama jàpp ne am na yenn message yoo xam ne warul jàll man loolu ah bañ a jàll déedéet warul jàll am na ay kilifa yoo xam ne mën na laa jur wala nu mat la maam nee na ma fi nga dëgg sa tànk bu ko fa dindi benn kilifa waxul ndax ñu eh, du jeex benn kilifa waxul ñi ànd ak man te mënuloo dugg ñoo ëpp bàyyi leen ko mu teel ñi ànd ak man te mënuloo dugg yow ko li ah, nga wax yow yaa ngi enseignant bu dóor sa doom bu dóor sa doom maa ko wax sama yaram tàngi man naturellement bu yaa ngi enseignant bu dóor sa doom dinañ ko digaale ak moom yaa ko moom il est d' accord ko wax. waaw jeex na waaw léegi xam nga laa bëgg Fall. xam nga lan laa ngir yàlla dañ la ko ñaan. man kay bud ma soosal. waaw dañ la ko ñaan léegi may ñu tuuti rek. ñoom ñu introduire donc duñu leen duñu yéeg. duñu yéeg duñu yéeg. du ñu yéeg léegi dama lay ñaan dama la ko ñaan ngir yàlla. ak yonent bi dama laa ñaan duñ fa yéeg. may ma rek Serge introduire. Prosper introduire ah, Fall dama la ko ñaan ngir yàlla. Ah, ngir yàlla bàyyi phrase bu ñëw rek nga bëgg cee dugg ngir yàlla tamit Fall yow tam waa jàpp ci. jàpp ci koo yéegal mu yéeg. la nekkoon violence daaw. <laughs> violence la ren. ba àdduna di tukki violence lay doon. parce que lakk loxowu nit. jël yat dóor ko ba gaañ ko. comme ni ngay wax a sànq mu am ay cicatrices loolu non loolu Aminata laay waxal dama ne da nga ne am na sa benn wala wala ci daaw keroog laa ko dégg yaa wax loolu très bien que nit ki day am ay cicatrice ki ngay kaari moom mooy jigéen waaye kii doon ni takk mbuñu ko ma tuddee góor la ñu jàpp mbuñu ko ma oh, xëcc ko ba mu kii oh, laxas ci kaas kii tey lu ma ko def waaw daa koy takk ci mbuñu ko mi <laughs> mais man maa ko rawoon mais ah. non maay ba terminé sama wax ay mbuñu ko billahi maa la rawoon a dégg Serge dañu rek voilà eh il est déchaîné ay liggéey ah, fu a dem ani père fu ma romb xaritu père moom ngoon de ah, man ànd naa ci mosoo bëgg a bëgg nuyoo bëgg nuyoo la ne la sa benn <laughs> mais amul góor la nga takk mu ñu ko gën a neex léegi xam nga violence li ci bot mooy day traumatiser nit mhm. man dama gis ñoo xamante ni quand même euh, ci fañ leen waroon yare fa la ñu yàqoo te nañ leen doon yaree moo tax ñu mel nañu mel parce que violence bi ñu subir jàpp nañ na tey war nañ ko subir loo n'importe quelle personne c'est ça le danger de la violence man ànduma ci tey ñu bëgg ñu forcer li nga xamante nii tubaab bi noonu lay yaree ñu bëgguñu ko forcer ñun Afrique ànduma ci li ma ànd mooy que dëkk bu ne dafa am ay réalité te faaw mu doxal ko waaye violence ni mu nekkee violence États-Unis nekkee ko France noonu la nekkee violence Sénégal te loolu faaw ñu dafa di loo xam ne man dama jàpp ne faaw ñu éradiquer ko beneen façon wu yar am na ku koy wax keroog ci émission bi waxtaan man dama naan nit ñi sama doom maa ngi tàmbali waxtaan ak moom ay du ay caaxaan su ngeen woowee sama jabar mu wax leen ko. c'est vrai ba muy nekk ci biiru yaayam laay tàmbali waxtaan ak moom. ci laay njëkk jël livre di lire ba ni mu toll nii tey soo ma fekkee may wax ak moom damay jàpp ne sama moroom laay waxal. <laughs> et Dieu sait que tu sens les résultats parce que kooku am na yoo xamante ni xelam nanguwul tey <laughs> mu yegg def si. mu def ko ci laay jël livre di lire du dóor. <laughs> du saaga. man du mës a dégg ma saaga. am parfois sax nga wax yenn mots yu xaw a kii. loolu ah, c'est un gros ah, mot ah, c'est un gros mot plusieurs fois. kooku da ngay da lay wër ni demee mën na nekk ci société boo. <laughs> xamante ni xelam du nangu yenn yi man ki ma yar bii lugaloo fële. yar na ma yar boo xamante ni man su ma ko su ma déggee saaga. damay tiit daf may choqué. benn yoon la juum. Hmm. juumul sax dafa wax ba wax loo xamante ni daanaka ñun suñ ko déggoon tey du saaga. mais daf ko wax ñun ñëpp dañ taxaw xool ko. parce que ñu loolu. ma ñu ñu tey dañuy créer société boo xamante si ni euh, éducation forcément dafay am Nelson Mandela education is the most powerful weapon to to use you can use to change the world maanaam euh, éducation mooy ànd bi gën a diis bi nga mën a utiliser pour changer àdduna mm-hmm. mais éducation du violence éducation du du du won nit ki faaw nga góore taxaw jigéen su taxawee ne nga dóor wala nga kii ko non éducation mooy jàng su jotee nga jàng mm-hmm. mag soo ko gisee nga jox ko cër ba mu mérito ku la féete ndaw tamit soo ko gisee jox ko cër ba mu mérito defe naa ñun ñëpp suñ doon yaree noonu tey suñu askan mais ñoom dañuy wax seen jamono man fii laay dégg ay mag ñoo xamante ni c'est d'une autre époque mais suñu waxee nga tiit mais ay wax yu rëy ay saaga c'est pour ça que faut pas être surpris ñu nekk Sénégal ko ñoo xamante ni saaga rek mooy seen mbir uh-huh. ñu jël leen donner en exemple yep. mais qu'est-ce qu'on veut dans ce pays là su fekkee ñooñu lañ bëgg a jël def leen exemple su fekkee mag bi nga xamante ni day nekk ci biir xale di saaga kooku lañ bëgg a joxe en exemple je suis désolé mais éducation au Sénégal effectivement comme vous, comme le thème le dit c'est à bout de souffle ñu ngi bëgg a sonn éducation baa ngi yàqu te faut qu'on retourne au basique mais les basiques encore une fois man gëmuma ni basique mooy dóor mooy saaga mooy violence basique mooy yar bi nga xamante ni mooy ci diine mooy euh, ci xam-xam et cetera ba nit ki ba ñu mën a defar nit comme ni ko Sophie doon waxee keroog